place de ñu commencé compter ñaata nit la ñu mobiliser là mën nañ ci toog di ci attardé wu mais je pense que li ñu war a gën a c'est pas le nombre de personnes yu nekk foofu mooy est-ce que ce problème la c'est un problème que tout le monde yëg parce que ñi ñi bëgg a dem bëri nañu quoi donc je pense que aujourd'hui si mbirum courant bi la Sénélec a très mal communiqué n'a même pas communiqué waaw non a très mal communiqué à la la limite ak non non ak mépris parce que li nit ñi euh, euh, retenir ci yokkum courant bi man li ma ci retenir mooy un ministre de l'énergie qui dit aux gens ne laisse pas les Sénégalais insulter ton intelligence yéen nit bu yokk xaaral rek birima nit courant di wax ak yow noonu c'est-à-dire que mayu courant bu ñu yokk nit ñi kaas c'est pas un problème politique de APR wala PDS wala keneen bëri na ñu nekk APR ñoo xam ne ñu ngi jooy itam ci côté boobu. donc aujourd'hui nit bi nga xam ne père de famille bi nga xam ne dafa daan fay 100000 di fay 175000 wala 200000. kat gafaam bi dara yokkuwu ci kooku du nekk di attaque wu ci ñaata nit ñoo nekk fe kooku mënoo fexe ba du ko yëg kooku mënoo fexe ba du ko yëg donc je pense que aujourd'hui ci yenn cause yi vraiment je dama yaakaar que dañu war a convoquer leneen lu dul appartenance politique wala kii fii nekk c'est un problème que sénégalais ñu vivent te ils ont parfaitement le droit de de, de marcher. en fait man sama gis-gis daal koy man déjà de façon très large. Euh, bañ ko personnaliser euh, en partant de d'un constat. dans un pays dafay am des décisions populaires parfois impopulaires. moi je considère que ne bii impopulaire. parce que les gens, tous les peuples du monde sont allergiques aux, aux augmentations. C'est tous les pays du monde. Peuple boo laal on se rappelle de France gilets jaunes yi c'est parti des carburants aussi nitri ay ça part toujours d'un petit truc mu explose donc tous les peuples euh, loolu la ñu euh, euh, jàpp moom mooy moom mooy réalité bi mooy ce dont je suis sûr aujourd'hui d'ailleurs parmi ces gens-là ñi dox ni nii tu, tu verrais peut-être quelqu'un qui a voté à la présidentielle pour Macky Sall beaucoup même ça n'a rien à voir oui. c'est que lii ça n'a rien à voir hausse la man dama koy yëg kii da koy yëg kii yëgu ko mais quel que soit euh, niveau bi nga toll tu as le droit de réagir et bien aspect bi c'est une nouvelle victoire beneen souffle de la démocratie parce que lii mooy normal il est arrivé ici euh, le hic mooy dañuy avancer benn pas demain on recule deux pas encore. Parce qu'il est arrivé ici qu'on qu se félicite d'avoir eu une, des marches autorisées ouais. et que la suite après, c'est les marches interdites et li am am. man je pense que Sénégal ñoo dépassé ñoo waral dépassé yenn yi les gens ne sont pas d'accord sur les idées mais li ñu bokk ñoo ko c'est pas parce que tu es da nga bañ Macky Sall wala mais on a augmenté l'électricité mais ba sa sago au gouvernement bi gérer mais je ne suis pas d'accord je souhaiterais que cela se passe comme ça. suñu nag moom la suñu constitution may. Mm-hmm. tu peux venir à n'importe quel moment wax sa. xalaat wax li nga li nga naqar moo tax may ñëwaat si affaire Guy Marius je rappelle la dernière fois maanaam ñu yëngal Guy dans le régime cette expression peut-être excessive ou quoi que tu puisses dire mais c'est une expression d'un sentiment dans une démocratie c'est c'est tout à fait normal c'est ma ma dem ci Barési euh, Barési laa lay woo rek comme comme tout le monde ñi la xam ñi la xam yëpp euh, président alliance jëf jël mm. alors euh, sa gis-gis ci marche bi amoon tey maa ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan di nuyu les sénégalais yi fi nekk et les sénégalais de la diaspora di aussi ñi nekk ci prison yi ñi nekk ci hôpitaux yi tout le monde quoi. di vous je aussi de cette invitation. Mm. Euh, marche bi lii lu ma neex la. Mm. parce que démocratie la wane. Mm-hmm. et puis mu wane ni suñ joxee autorisation nit ñi ñëw pour marcher. Mm-hmm. suñ démocratie lay lay dalal. et ça se fait dans la paix quoi. la paix mu wane ni li Guy Marius Sagna defoon ak suma jeune frère ay docteur Babacar Diop et les suñ ko tegoon ci yoon ñu autorisé kon tey duñ leen jàpp. Mm. et li nga xam ne tey ñoo ngi koy wax ci électricité bi yokk nañ ko wàññi nañ ko fan lañ ko war a yóbbu dañ ne tey suñ ko gàññee nii def benn genre ajustement bu war a def pour mieux financer électrification rurale. te jàpp naa ne Sénégal courant bi ñii dañ ko war a am ñëpp a ko war a am tey parce que foofu lañ toll donc euh, éducation rural dëkk yi ci kaw gi ñëpp am courant te jàpp naa ni tey man man je préfère am courant bu cher ki di am ay xuy kamaj parce que xuy kamaj bi mu fi amee coupure yi extra extra réew mi doxul économie bi doxul dara doxul donc tey bu ñu nee tey électricité bi courant bi dinañ ko am ñu am courant bu doy loolu la yi bëgg. te tey ñu xool ñan lañ war a yokk ak lan lañu ci yokk. ñu bañ a nëxal xelu Sénégalais yi ne dañu yokk courant bi mel ni dañ ko doublé wala yi extra extra. donc tamit man lay doxee wàññi woon nañ ko fii affaire yi pendant des ren dañu war a toll économie bi ni ñu demee ñu war a yokk ñu yokk ko. alors euh, balaa may dem dem bu njëkk bi dafa am loo doon yokk. waaw dafa am loo xam ne man dafa méttoon. mbir ma namoon dama dégg communication bi ministre bi def. Mm. ministre suma xarit la koo xam ne lu baax laa la wax ci moom. mais communication ministère yi ñu def. Mm. ak waa Sénégal ba ñu génn wax Sénégalais yi. Mm. nit bu la joxee réew. dénk la ko rek fonk ñu la ko jox. wax leen li xew. expliquer réew mi lan moo tax. parce que Sénégal le Sénégal est très libre. le jour nga wax leen loo xam ne convaincre na leen ñoom ñoo leen njëkk a jàppale ci décision yi ngay jël. je pense que li war a jóg di wax nit ñi ak respect. reste parce que il faut ñu xam ni lu ñu yor ba tax ñuy balballu ñun moo leen ko jox nit ñu leen ko jox. alors respecté les sénégalais. alors Birima yaa wax sénégalais yi dañu libre ndax li ci liberté la bokk donte association privée lañ nekk di sànnante xeer li xew euh, ci mouvance présidentielle bi mais de manière plus précise à l'APR. Euh, une république malmenée bu doon ci tubaab laa ko bëgg wax moom lañu gis par ses propres dirigeants fan yii euh, bu ñu leen lim euh, limee suñu suñu làmmiñ lott Cissé Lo Yakham Mbaye Farba Ngom Maître Djibril War Moustapha Diakhaté bëri nañ ci ñu leen di dégg ci loo xam ni pour la plupart peut-être pas ñëpp dans le lot mais coow yoo xam ni la rafetul ci kilifa ñuy weerante dàggasante ndax loolu day firndeel ni euh, jamono ji frustration yi dafa bëri looloo tax ñu woo la ndax euh, ci mouvance boobu nga bokk ndax frustration la wala déjà bataille de succession la ñu mën a gis foofu nan nga jàngatee li xew euh, jamono ji ci mouvance présidentielle bi parési lu ma lu lu lu ñu naqaru la mm. ndaxte mënuñu ni tey fal bi ñu falee président Macky Sall ba léegi muy war a toll yàggul nga gis ay magum jëm tey di xasante di waxante ay wax yu ñaaw et liñ ci génne lépp tey nga faluñu kenn tey pour mu taxaw ñu naan euh, moom moo waroon a capté ay engrais ay yaa fi def engrais bi yaa fi semence bi yow lañ ko jox kenn naan ko way ñun tooroodo lañ kii géwal la extra extra ñu naan jabaru ministre bi jox nañ extra donc non jëkkëru ministre yooyu yooyu ay waxu ay waxu xale la hmm. ay waxu xale la te jàpp naa ni man ca li ma ci yaakaar mooy le président Macky Sall va prendre des mesures ndaxte loolu taxul ñu mu xalaat tey ku ci nekk day fëgg dëndam mooy man maa fal président Macky Sall si maa fal président Macky Sall non non président Macky Sall président Macky Sall Sénégalais askan yee ko fal pendant des années ci programme bu ñu doy nit ñi ku nekk def ci sa def ci la donc dépensé naa ci xaalis c'est que gàcce lañ ci am mm-hmm. naqar lañ ci am donc wante nag dañu war a jàpp ni kër goo dem kër goo dem am na ñu të am na ñoo xam ne mënoo leen a maîtriser ci un genre. Hmm. loolu moo xam ne du ñëpp ci mouvance présidentielle bi moo am loolu moo mel. donc daf daf ci am ñoom ñu të ñeneen ñi ni nga wax kenn mënu leen. kenn mënu leen dara mais lii. lii xew dernière semaine yi na la leer ni bu président Macky Sall ñëwee ou autre chose dinañ ci jël saafara. Mm. du ma jàpp ni par exemple aussi genre Massalikul Jinaan lay doon ñu joxante ay loxo ñu ni voilà extra extra juboo nañu parce que cinéma bi ak comédie boobu dañ ko doyal Sénégal yi dañ ko doyal. Mm. liggéey la ñu wax. Mm. fi mu nekk nii foofu la ñuy xaar foofu la Sénégal lañ ci di xaar président Macky Sall. loolu la ñu bëgg. donc mais pas ay dàggasante ay waxu waxu xale waxu kasal kasal. Euh, Pape Djibril pour moins que ça ku mel ni Sori Kaba on l'a défenestré donc on ne comprend pas que. Euh, depuis plusieurs jours lii di li lii di am dégguñu benn kilifa rawatina njiitu réew mi siffler la fin de la récréation. d'ailleurs man position bi ma fi amoon jamono yi PDS amee pëcc bi rek lay amaat. Mm. c'est-à-dire que parti politique bu ñu koy former c'est pour mu jël en charge les préoccupations des populations. mais bu fekkee ne partie yi nga xamante ni ñoom ñoo war a régler problème mu population yi ñoom ñooy am problème finalement mm. <laughs> problème dafay am donc euh, jig na parti yëpp nag waaye parti présidentiel moo ci gën a bon mm-hmm. boo xamante nii dafay am lool parti bu nekk au pouvoir di am problème yooyu moo ci gën a bon lool laa wax quoi bala ñu ne dama contrati président Macky Sall <laughs> je fais très attention maintenant <laughs> non eh, euh, li ma bëgg a mooy Abdourou ah, ñëpp ñoo la mag fi waaye yaa ñu mag ñun ñëpp <laughs> waxi mag wax biru ma dëgg laay parti parti parti bu bu pour dem régler problème mu Sénégalais fekkee ni moom moo retourné am problème ba population yi toog di xool nan la ñuy régler problème yooyu problème dafay am. donc loolu moo ciy mais dafa révélé lu bare bëree bëri malheureusement comme lan révélé na benn ndax gis nañ assemblée nationale wax na ko léegi c'est-à-dire que loolu aussi ça a été une promesse du président Macky Sall du candidat te loolu ça été une forte exigence d'une certaine société civile mooy gis nañ problème yi nga xamante ni président de la république daf koy am bu fekkee ne moom mooy chef de parti hmm. loolu donc dafa ñëwaat tey moom mooy gis nga Barési nee na bu ñibbisee bu ñëwee dina ko réveiller donc finalement gis nga cette volonté d'omniprésence là dafay déboucher sur un aveu d'impuissance dangay dem ba finalement tu as des problèmes pour régler pour pour siffler la fin de la récréation parce que ñaata yoon on on pensait que bi mu bi mu bi mu arbitré jamono yële ci ñoom sori kabaak ñooñu pour ñoom pour ñoom affaire bi jeex na xëy na ñu bëri sóoruñu woon ne lii dina ñëwaat et puis li gën a métti dans mooy Sénégal da dafa nekkoon ci phase bu am solo fi ñu jëm nii mooy marathon budgétaire bi mais affaire dafa noyé marathon budgétaire bi ba amul sax lisibilité bi nga xamante ni moom la ci waroon am parce que finalement ay dóorante ay coup moo fa gën a bëri ñu posé waat la toujours ci fonctionnement parti politique yi mooy ku ne def naa tant de millions ci campagne bi def naa tant de millions ci pour président pour mu falu def naa tant ci législative yi mais ça pose encore une autre exigence boo xamante ni une certaine société civile amoon na ko par rapport au financement des partis politiques parce que ñoom benn kii wax danaan damaa joxe donc j'attends un retour sur investissement et sur les autres plateaux aussi boo xoolee à chaque fois nit ni ñuy waxee c'est comme si le gâteau était là et qu'il fallait kii ne jox naa nangam mu poser beneen problème boo xamante ni moo gën a métti et je pense que quelqu'un comme Aliou Diop bu force paysanne il doit avoir mal su fekkee ne conviction changé wul ci diggante bi mooy pendant longtemps waa kaw gi dañu sonnoon ci mbay bi pendant longtemps te boo seetloo coow li fi mu jëkk affaire bay la affaire gerte xeet yooyu te sëriñ bi boo dawee tuuti génn fii rek nga gis ne nit ñi ba tey na seen maam yi doon bayee la ñuy bayee daa yor ille yor illeer wala yor machine topp ci mu métti ba nga xamante ni c'est extraordinaire nga gis fa ay xale ay jeunes yu am vingt ans trente ans soo leen gisee mel ni cinquante ans lañu am parce que dañu escanté wu et ça ça va revenir sur notre prochain sujet bi ñuy am par rapport à l'immigration clandestine justement parce que l'agriculture aujourd'hui qui devait résorber le gap du chômage ne répond plus aux attentes parce que intermédiaires yi noo tax kenn ku ci nekk jël parce que nitu kii nga parce que sa xëy na bayoo waaye am nga tey possibilité jot fi ñu joxee affaire yi nga jël ko def ci loo xamante ni moom mooy li nga xamante ni moo la neex maintenant je souhaite que guerre bi jeex dañu <coughs> dem liggéey parce que en réalité huit mois la ñu def ci juróomi réalité boo fàttalikoo en 2008 quand la crise a eu au niveau du PDS gis nga li ci xew 22 mars 2009 gouverner tuñu gouverner tuñu ba 2012 j'espère que dinañ jël mesure idoine jàng ci parce que en en fin de compte falu ñu leen pour ñu gérer seeni problème dañ leen fal pour ñu régler les problèmes des Sénégalais je pense que loolu c'est pas contre qui que ce soit alors